mbiram jàpp ne lu njëg njàkk état ci boppam mooy njàkk ndaxte moo bàyyi ba yëf yi toll fii naataangoom bi di Yamar Ndaw jàpp ni Sénégal ci boppam dawal fi oto ci circulation bi moo nekk lu métti ndoy moom ab acteur social la li mu gis mooy accident yi dëgg la naam bëri na waaye lu koy sooxe yépp bokk na ci transporteur privé yi tali bi kon di wéy di faat le quotidien yéene kaay di ko nangu moo tax yéene bi jàpp ni léegi sax ci Sénégal tukki ci guddi moo nekk lu wëratul dëkkuwaay bi wëratul sax ci Sénégal ubbil libération bi dikkaat na ci li xew ci Kaolack ak immeuble bi nga xamante ne dafa màbb ci ab njaboot ca Touba Ndorong bi nga xamante ne moo nekk ci Ocass ni ki démb bilan bi métti na ndax ki nga xamante ne mooy boroom kër ga ci boppam du saw dafa ñàkk bakkanam guddi gi sax la ñu mujj kon jot ci niiwam naka noone kenn ci ay soxnaam mën nañ ci toftal ci bilan boobu sax fukk ak ñetti doomu aadama yi nga xamante ne jëlee nañ ci ay gaañu gaañu ñett ñi sax seen bakkan ci xottu gerte la nekk jamono ji l'observateur dikkaat na ci bilan bu métti boobee nga xamante ne ab njaboot la laal ci Kaolack muy ni kon borom kër ga ak ñaari doomam dañoo ñàkk seen bakkan yokk ci sax ñetteelu soxnaam coowal ñetteelu mandat Sud Quotidien daal di xam ne ni kon jamono ji Macky Sall moo mel ni kuréer ci mbir mi li ko waral bokk na ci proposition de loi ngir kon amnistie kii di Karim Meïssa Wade ak Khalifa Sall nga xamante ne mën na ko sooxee Le Quotidien yéene kaay dikkaat na ci projet d'amnistie boobu mu jàpp ni ay loi la nga xamante ne dafa teyloo xel ci Sénégal rawatina yéene kaay ma jàmbal jaan bi dikkaat ci histoire Senghor maître Abdoulaye Wade ba ci Macky Sall mu gis ni loi dafa mel ni ab pexe la ngir njiitu réew yooyu ñu daal di saafara seeni jafe-jafe politique loi amnistie yamul rek ci saafara jafe-jafe politique ndax yéenekaay bi di la mandat dafa gis ni bile loi du yam rek ci Khalifa ak Karim waaye Macky Sall lum ciy jublu mooy fexe ba nëb-nëbal luxur ak njombe yi nga xamante ne moom ak njabootam def nañ ko te lépp ñu fas yéene ko jaarale ci yoon ci yoon la Macky Sall di jaar bu ñu sukkandeko ci le réveil quotidien ngir rëkk ndigg ay adversaire am ci wàllu politique yéenekaay bi dafa xayma diggante 2012 ba 2022 gi ñu nekk politique opposant yi nga xamante ne tëj nañ leen te lépp dara waralu ko lu dul politique suñu naataangooy di laaj sax ana xaalis bi nga xamante ne moo tukkee ci traque des biens mal acquis ak yeneen dossier ñeel koppar yi nga xamante ne Macky Sall daf ko doon toppee ay opposant opposant yi ci le vrai journal seen jafe-jafe mooy li ñu war a wëyale seen ànd ndax loi amnistie bi nga xamante ne dafa ñeel Karim Wade ak Khalifa Sall ci tasaare leen la jëm ndax ku ci nekk am nga looy mébét ci atum 2024 mbébétu waajur yi jamono ji mooy nu ñuy ba dellowaat seen doom ci l'école bi ne ay fan yu néew a ci des l'observateur def ci ab gëstu bu yaa dikkaat ci rentrée bi nga xamante ne kon war naa métti ci waajur yooyee ndax lu jëm ci kaye ba ci sax téere yi nga xamante ne dañu koy soxla ak matériel yépp daanaka dafa yokk ci téeméer boo jël juróom fukk ya ci biir yeneen kaay groupe futur média bi Cheikh Omar Anne di joriñ ju ñu dénk léegi wàllum njàng mi ak njàngale mi di sàkku ci acteurs yi ab solidarité maanaam lëkkaloo dëgg ngir année scolaire bi daa di am ci anam yu mucc ayib année scolaire bi daanaka benn ci ay bis képp moo ci des